embrassée par plus de 98% de la population, rejette sans équivoque cette abomination, alors l'Union européenne, en envoyant cette dame-là, affiche clairement sa volonté de faire du Sénégal un cheval de Troie pour faire passer à travers cette inopportune ingérence électorale un agenda caché. Maline Anna Borg s'est distinguée par le passé par une attitude blasphématoire à l'égard de Jésus-Christ Insa ibn Mariam, l'un des prophètes les plus vénérés, aussi bien par le christianisme que l'islam. Effectivement, cette dame a soutenu et défendu, contre vent et marée, une œuvre blasphématoire, impie, représentant Insa ibn Mariam, dans une attitude que la décence et notre morale de croyants nous interdisent de décrire sama teggin mayu ma may wax la mu def jëmale ko ci sang bu tedd bi Seydina instant waaye da ngeen dem ca Google ngeen tàppe turu ndaw si ngeen tàppe Jésus Christ ngeen gis la mu fa wax te it mayewul ma di ko répété ndax dafa jéggi dayoo c'est dix mille fois pire que les caricatures blasphématoires contre le prophète fa laay mën a yem nag waaye boo leen duggee ci Google ngeen tàppe turam ngeen gis yëpp jàllooreem yëpp deen ko gis le prosélytisme malsain de cette activiste de gauche vice-présidente de l'intergroupe LGBT au Parlement européen n'est pas le, le, euh, le bienvenu au Sénégal. Le Sénégal dont les populations, tout en étant bien attachées aux valeurs de tolérance et d'hospitalité, ces populations n'en sont pas moins fortement attachées aux nobles valeurs socioculturelles que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise. Donc, au vu de l'irruption intempestive dans l'arène politique sénégalaise, de cette farouche militante de la cause LGBT, de surcroît lesbienne affirmée, qui est en scandaleux concubinage avec une personne du même sexe, considérant le ressentiment à peine voilé de Maline Anna Borg contre notre pays, notre pays qui n'a eu que le tort de résister aux pressions multiformes de différents lobbies LGBT occidentaux qui en veulent viscéralement au Sénégal de n'être toujours pas tombés dans leur escarcelle, à l'instar d'une bonne quinzaine de pays africains, considérant que les populations sénégalaises, imbues de leur foi religieuse, ont toujours su imposer aux autorités étatiques de notre pays et sous tous les régimes leur profonde aversion des déviances comportementales. Alors nous invitons tous les citoyens sénégalais, soucieux du devenir de notre pays, et de la sauvegarde de nos valeurs socioculturelles de base, de se joindre à l'ONG islamique Jamra et à ses alliés de Dar al-Qur'an wal dirigé par euh, l'éminent imam Ratib de Rifis Elaj Alioudia, de Douha Minal Kitabi wal dirigé par euh, le coordinateur de Jamra dans la commune de Wakam, l'imam Ratib euh, Mohamed Lamine Jamra demande donc aux Sénégalais de se joindre à nous pour, premièrement, récuser cette propagandiste des unions contre nature qui est loin d'être une référence morale et qui prétend s'ériger en arbitre d'un scrutin aussi décisif que la présidentielle 2024, qui consacre la rencontre d'un homme ou d'une femme avec son peuple en vue de baliser les voies d'une reconquête de notre identité culturelle longtemps pervertie par un impérialisme culturel de plus en plus tentaculaire à l'aune de la mondialisation et qui ambitionne d'assimiler les peuples du Sud en les confinant surnoisement dans un statut d'éternel assisté. Deuxièmement, Diamra et ses alliés demandent à l'État du Sénégal l'expulsion dans les plus brefs délais de Maline Anabord et de la remplacer par quelqu'un d'autre. pour diriger la mission d'observation euh, des élections de, de l'Union européenne. Notre cher pays, où repose Cheikh Ahmadou Bamba, Seydil Hadji Malick Sy, Cheikh al-Islam Baye Ibrahima Niass, Seydina Limamu Mamou et tant d'autres, ne sera jamais et n'acceptera jamais d'être un terrain d'expérimentation de modes de vie qui sont aux antipodes des nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise. Avant l'ouverture de la campagne électorale de la présidentielle de 2024, l'ONG islamique et ses alliés effectueront une tournée nationale d'information dans les cités religieuses pour démontrer, dossier à l'appui, aux autorités et khalifes comment les lobbies occidentaux, après avoir lamentablement échoué à embrigader notre pays à travers le sinistre projet parrainé par l'UNESCO, consistant à LGBTiser notre système éducatif en décembre 2020, alors l'Union européenne entreprend à présent une insidieuse infiltration du millier des candidats de l'arène politique sénégalaise selon une stratégie similaire à celles qui ont fait effet leur preuve au Gabon, en République centrafricaine, à l'île Maurice, au Cap-Vert où les lobbies LGBT ont réussi à leur imposer leur agenda satanique avec la complicité d'une élite politicienne corrompue locale. <coughs> Jamra, enfin, Jamra n'exclut pas d'en appeler notre, nos compatriotes à l'organisation à d'une marche pacifique pour faire face à ces euh, lobbies mondialistes qui veulent détruire nos sociétés à travers une nouvelle trouvaille sous l'apparence d'une inacceptable ingérence la L'agenda LGBT, su quelque forme que ce soit, ne passera pas par le Sénégal incha allah kon ndaw si dinañ ko jebaane ci këru diine yëpp ndaw saa ngi nii kii moo moo moo chefu góor jigéen yi moo dirigé la commission de l'intergroupe LGBT au niveau du parlement européen xanaa loolu rek waroon na tax sax état bi récuser ko avant muy jël avion ñëw moo jiite ni mu amee. Sénégal ni mu amee groupe parlementaire Yewwi groupe parlementaire Wallu ak yooyu Union européenne dañu am groupe parlementaire LGBT ki mooy vice présidente bi lan la fi wut du ñu ko nangu parce que réew bu mu dem bu fay jógee ñuy daganal ngóor jigéen borom yi pexe la pexe yu bon la la yor fi mu ne gis naa ko nag muy lami santoog yenn candidats yi keex keex keex waaye on a toutes les informations et on vous a à l'œil fii kenn du fi profité ci ay élection di financé ay candidat pour que candidat bii ñëw yàq réew mi sànq réew mi duñ ko nangu ndaw saa ngi dinañ dem nag toogal sëñ Muntaxa parce que fii dama leen résumé mais xalif généraux di leen jox document complet jaar-jaar ak ñaawteef yi ndaw si def ci dëkk bépp dëkk bu muy jaar day saaga yoon ci yàlla instant dafay saaga Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam dafa approuver les caricatures blasphématoires contre sang bu tedd bi Seydina kii lan lay wut ñu bëgg yéen ñëpp na ngeen jàpp ci presse bi sénégalais yi ñu dàq ko mu ñibbi ñun bañ ñu union européenne superviser élection yi yàgg nañ ko superviser depuis Diamarlo Abdou Diouf Abdoulaye Wade et cetera y a jamais eu problème pourquoi ñu di fi yebal góor jigéen ñoo ko def exprès c'est une manière de ñu défier et de dire que on a échoué bi nga xam ne ambassade du Canada bëggoon na may góor jigéen yi financement ngeen xeex ko ils ont ginnaaw bi nga xam ne euh, Peter Wang borom Wang rëy bi jógoon na jël xaalis dégg nga pour ñu financer société civile pour ñu def plaidoyer pro LGBT ñu échoué UNESCO ñëw fii Jamra ànd ak Dame ñu xeex leen ñu échoué léegi li leen dese mooy lii ñu ne comme que Macky Sall day dem te moo doon wax Obama non Justin Trudeau mu ñëw mu ne ko ñu ne ko comme que moom day dem nañ seet ci candidat yi fi ne ñoo xam ne mën nañ am yaakaar ci ñoom ndaw si la ñu mission boobu te dama tënk rek foofu laa mën a yem ak yéen mais am na ay information confidentielle sëñ Mountakha lañ koy dencal ak sëñ Babacar Sy Mansour ak sëñ Mayi Niass ak l'église voilà kon nag euh, loolu laa ne woon dinaa ko partage ak yéen